waaye ba buur ba géntee juróom-ñaari nag yu duuf juróom-ñaari nag yu wóor ko ne lii lan la jaara. sama gént gi lan la seet <laughs> nag yu ngand mel ni ay nagu Hollande set nag yu woo koŋ ba mel ni nooroog Sénégal benn boroom xam-xam jaar fa ne ko attention pourtant de <laughs> tëj nga fi koo xam ne yàlla ak ko koo may ci gént. Hmm. xale bii nga tëj fii ci biir nii. Hmm. Hmm? Yuusu Sugu. <laughs> yàlla Yuusu. waaye ba mu génnee la ko nettali gént ga de bu yóbboo nga waajal sa bopp de <laughs> sa juróom-ñaari at yu duuf yi at nag eh, eh, nag nag yu wow koŋ yi waajalal juróom-ñaari atu bekkoor yoo xamante ni soose ak juróom-ñaari atu naataange. bu yóbboo nga waajal sa bopp. loo mën a bay dencal dencal pour nga am souveraineté alimentaire. ndax juróom-ñaari at yeneen di ñëw doo am juróom doo am souveraineté alimentaire boo dencul rek tey xiif dina la rey sa waay mais mu mujj nekk conseiller mu mujj nekk ministre premier ministre ba mu jóge ñu gàddu ba nga jox ko ko. macha allah nañ nekk fii tuumaalaate rek dégg nga loolu. yoor yoor yéen kaay ñëwal min ci ku sell ki. léegi est-ce que doo maye bi dina la jàppale. oui lii kay il faut ma jéem ci ñawlu mais jaara nag yow aussi da ngay am na ku ma koy wax wallaay am na ku ma koy wax fii ne ma da waroon tey sañse comme grand. waaye sañse mm. comme. lu mooy dëgg mais soos mais temps damay guddee. noonu la di damaa guddee trop waay. temps yi ay 23 heures laay jógee. nga loolu yow mm-hmm. musul teg tànkam sa mairie ma léegi. Mm. ba fi ku sell ki di ñëw teg naa fa sama tànk de. dégg nga loolu ah ñëwoon na. ñëwoon na ñëwoon naa de pourtant. ah keroog bi Ousmane di ñoo ñëw. ñëwoon na c'est bien. Mhm. moom suñu bopp gi nag bu lii dakkulee dana mën a ne moo tax journal bi de le souverainisme en marche. merci beaucoup professeur le souverainisme en marche. Mhm. voilà lii bu dakkulee ca jamono joojee ñuy xeex ak tubaab bi wala leen su bopp suñu président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ma nga woon ca diwaanu Nigéria ca diwaanu Ghana. Mhm. ak coow. laa ilaaha illallah. ma nga ca koom-koom ba <laughs> bas rek. bas day bas bas bas bas bas bas rapid transit ay waay waay BRT eh? boolewul dara dara dara dara dara ak i coow sëñ Saliou Gueye maa ngi lay nuyu dégg nga loolu. Mhm. heures nga wax nit ci mais lan moo tax ba Ousmane Sonko mere Emmanuel Macron mi nii. Mhm. ce que Sonko reproche à Macron. di ko Sénégalais yëpp mere la ko mere. Mhm. c'est très simple. ñaari nit bu ñuy xeex. nga xam ni kenn kii ëpp morom ma doole nga nënt wala nga ne doo àtte yaa ngay sot naa fekk nga ku jël appareil état yéen ko benn nit ak waa këram jabaram rëccul doom ko rëccul mbindaan nga ca boppam ba mu demee nduggi ba mu ñëwee dañ ko ne teg ko fi te dem dégg nga protocole yi rëccul kenn rëccul ñu bokk ci parti tout jël appareil état teg fa jël police indi biir buntu këram julli ji jumaa ci boppam dëkko nduggi dëkko doom yi di jàng ñu ne ko ci biir waaye yow nga nekk fii nii te yow nga ne yow da ngaa xamante ak ngay def loolu. ne pat qui ne dit rien nañu mmh. boo attew yaa ngay sot te d' accord nga ca. Mmh. lii la Ousmane Sonko ne lu la wax ci ay doomu aadama da koo wàññi sax ñuy ñuy mmh. loo ëpp junni ak juróomi téeméer jàpp ñaari junni. ci kaso bi ci kaso déggoo mu ne. waaw combien de blessés des milliers ay junni junni yu am ay gaañu gaañu moom la Sonko di wax de ne dafa am ay tubaab yoo xam ne nag ñoom yaakaar nañ ne la woon ba léegi wóonewul de. Mm-hmm. ba léegi muumum njaam gi mi ngi fi non alors que suñu diggante ak France nag dañoo war a respecté nde mm-hmm. fii égal dignité la ñu wax. Mm-hmm. dër bi du ci dara lii lañ bëgg. Macron mi xam ko. ki dafa soof. tubaab day nee na. Euh, la neutralité est une forme de lâcheté. Mhm. waaw maanaam boo fekkee ku ëpp doole di néewal ku di dóor ku néew doole. ateo loolu c'est une boo xamante ne. waaw kenn xamul lan la. waaw moo tax yenn silence yi aussi baaxul. waaw mais kilifa sax noppi dalaa warul. ah daa ëpp naa def. kilifa. ngay kilifa politique ngay kilifa aada ngay kilifa diine yow boo xasee ba doon kilifa rek maanaam ñu bëree bëree bëri yaakaar na rek noppi waratu la. Mhm. attention mhm. dëgg la noppi waratu la de ñaar fukki mesure ak ñaar la jël ngir wàllu nawet Dakar Times ñëw ñun ci mais yow yow lii journalu démb la wala lii dañ ko wala lii dañ ko hmm. indiwaat ah lii kon dañ ko indiwaat di hmm. ah lii defoon nañ ko fi démb. départ de Mountaga Sy au port quel gâchis. Sonko. Ah quel gâchis ana gâchis bi. ah journal bi ko bind. ah. waaw Mbour Ba maa ngi lay ah, dama maandu man. Dakar Time ne sama ngañ nekku ci. koo jaara de ngay toppandoo bàyyi. <laughs> ah doon sa bàyyi nag moom. ah mbir la. man léegi ma commencé sax di rëy. Hmm. damay gis gars yi moom sa waay ku ne gars yi toppandoo nañ ko fi waaye man de ku ma yóbbul ca TikTok bee baat bii de ko jéem a toppandoo xoolal ñaari vidéo ngay def sa baat bi xutti ko. bàyyi. léegi nga na ay xool bisimilah ma ne la xutti ko te te te te te ko. dégg nga. le procès vire au. gay ah bon. procès ba day nee ci lii la soppeeku wàllum góor jigéen. parce que Mélenchon mii daal ñëw na fii xam ne carrément ne moom moom nëbb ko moom ñi muy défendre muy wàllum góor ah. jigéen yi. Ousmane ne ko du ca daal projet ba nag lii la Dakar Times wax aca ngaa la hmm. faut si bés bi la journée xam nga coole lan la hmm. coole nag buñ bëggee wax dëgg te yàlla rek tax hmm. waxi ñoo woroo ñii nekkuñu ñuy ànd alliance contre la dëgg la Ousmane warul sax taxaw ak koo xam kii wàllum politique d'accord mais wàllum ay góor jigéen nag du góor jigéen góor góor kii dafa ñëw xam ne carrément ne moom moo njëkk a taxaw ca penc ndaw réew ma ca France hmm. ne nañ leen dagaleen jigéen di sëy ak jigéen góor di sëy ak góor te loolee dañ ko war hmm. tam yàq na ngeen gi <laughs> de kii itam kii itam kii itam na de <laughs> yàq na xew rus nañ ko toog <laughs> bi tamit ëppal na de yaa moom xew wi rek mu ne. mën nga attaay rek ngay fudale tànk. yaa Mélenchon rek nga bëgg a mel lépp. waaw. mais rek cere ji neex na rek. nga jël ceeb ba ngay jaxase ko cere. mais nag man man man. naw naa ko ci benn bu fekkee ku mat rek. mais na naw naa ko ci franc parler quand même. waaw parce que mënoon na fi nekk di ko di laayam laayam rek. il a été direct il a été franc. waaw mhm. ah, vraiment non non loolu waxuñu ko. waaw te parce que triché wul. noonu la mës a mel. waaw mais journal bi dafa ne. Hmm. ñaar ñii ñoo warul àndal. dama ne. <laughs> dañu doon titre de lieu ci soof. barki yonent bi liñ bind rek ngay wax te naan du samay kàddu de di daw ay convocation journal bi ko wax waaw mais dañu waxante dëgg <laughs> ah hmm. eh journal bi ngeen ne eh, eh, lii alliance contre nature la hmm. Mélenchon constate des désaccords radicaux hmm. peut-être qu'un jour duñ ko voter ah wax leen ko dëgg nag kii nag wax leen ko dëgg nag moom Mélenchon mi. dafa ëppal de. na kay eh, ah tamit ma la. kii étudiant yi ko gëstoo moo neex tëri. ah dëgg fa rek mu ne xaaral fii nekkul milieu boo xam ne dañ ma fi yuuxoo. wax leen kii dëgg nag. c'est moi qui ai défendu le projet xaw ma lan maa ko njëkk a dugal wax wax rek. daay tàcc. non c'est que am ñu ne. waaw c'est que tax yi tamit tax yi tamit. non non non non Socé Socé déglu ma expliqué. bilaay ku sell ki lañ ko rusee rek. non non non déglu déglu rek. am non non non non étudiants yi sax tàcc wuñ xam nga président Diomaye dal na ko ci campagne bi. dal na ko ci ko dal na ko ci campagne bi. bi mu naan ana kan moo dàq nangam gars yi ne ko Diomaye ana kan moo gën a féete na Diomaye ana kan moo dàq sàcc. fekk boobu bi. Hmm. ñu ngi nekk rek ci joomaay joomaay joomaay tempo dafa garaaw de. tempo moo garaaw ci nekkee nii. ah. tempo ànd sa sago. <laughs> voilà léegi nag. le gars quand il a commencé parler. Hmm. étudiants yi presque déglootuñ ko. ndax mbégte mi nous hmm. donnons la parole à notre cher invité xam nga li ma la wax Jean-Luc Mélenchon booy commencé nañu yuuxu di di yuuxu yow léegi nag mu commencé bi muy wax nag ne c'est moi qui suis le premier gars yi ñoom ñu ngi ko teg ci révolution bi waa hmm. déglootuñ ko. déglootuñ ko mais bi mu waxee loolu rek bay xam leen moom mooy koo xam ne moo ko njëkk a yóbbu foofu pour ñu daganal wàllum góor jigéen. Hmm. boo fekk ne gars yi ñu nekk ci kii boobu mais am na nag ay étudiants yoo concentré. nee na <laughs> am na ñoo xam ne nee nañ ne <laughs> loolu mooy. Eh, eh, eh, bàyyi leen bu leen tàcc loolu waay. bu leen ko fa waaw am na ñoo xam ne tey ñoo dem wuti ay nit leen dogal ci tere yi. Mm-hmm. am na ñu tàcc sax te xamuñ lu waa ji xam naa mm-hmm. parce que euphorie bi. communication bi bu leen ko bàyyi attention nit boo ko falee da nga koy gunge. Mm-hmm. waaye fal naa ko rek l' objectif mission accomplie pare naa ci. fii leen gën a soxlaa gaa yi leen gunge. Mhm. lu leer laa expliqué parce que lii may faram-fàccee nii daa jar a leeral. Mhm. Mhm. bu mu yem ci chaîne YouTube bi nañ dem ci télé ak rajo wax affaire bi noonu la doon demee de. parce que même boo xoolee les étudiants yaa yi nga xam ne ñoom dañ doon suivre boo ko ñëw jaara ak sugu ñoom dañ doon suivre biñ toppee tempo bi rek dañoo taxaw. ne eh, eh, eh, nii ne nee eh, eh, eh, dégg nga. Hmm. waa léegi kii moom bu dee moom d'accord na ci wàllu góor jigéen. waaw seen waa dëkk d'accorduñ tamit ci wàllu polygamie. polygamie ñaari jabar ñaari jabar ñetti jabar ñett ba ñeent waaw Ousmane Sonko jiital Pastef ne de débarquer à Paris avec mes deux dames ñaf. <laughs> barki Rasulullah waaw sama certificat mariage yi teg leen fii fii laa waroon a indi certificat mariage yi teg leen fi. Hmm. yow ñun ay sërif ñun ñun ñun ay benn jabar yi tamit ñun suñ maam yaree ko jaara na ko nit ñi xamee noonu jaara na nga réglé te xam ne famille polygame te kat doomu ñaare léegi ñetteel léegi ñeenteel yi ñoo gën a bañ wujjee man looloo ma jaxal su ko defal xoolal bàyyi xel ci li ma lay wax. sama yaay ñaareel la. yow xanaa yow da yaakaar ne xanaa man yow dama laa xamul. dama wóor naan la sama yaay ñaareel la. sa yaay ba mu nekkee ñaareel day tey léegi. day tey. man mii di sa bàyyi kay xanaa man kay man a nit baax na jarul di wax sama yaay ñaareel la jarul di wax. ma la jaarale di defaru naan sama yaay ñaareel. waaye man bëgg na mujjee Ahmed. léegi. waaw mais ñi seen mais mais ñi nga xam ni ils sont mais ñooñu ñoo gën a mën a fiire Ismaïla Yacine te seen i ndey wujje ba dee wujje ba jur leen wujje ba jur leen ba dee ñoom ñu taxaw ni ñoom ñu wujje di ngeen wujje par force en tout cas Ousmane moom nee na ca France ge te du loolu bi dafay tëral wàllu ñaari jabar hmm. ñetti jabar jàpp ñeent mbindeef mënul fexe ba bu koy wàcc du fa wàcc ak ñaari jéegam waaw damaa war a préparer sax léegi di tukki ànd ak man il faut léegi ma commencé di wane samay soxna ci télé bi hmm. di léegi nii di di di di di di braadu su braadu su góos ak droite gars yi ne waa bii moom te ñun ay sërif la ñun dañu ne ma ay kaat ñun il faut wuyu ma sugu am ko ne ci kanam ñu ne ñaf xoolal aaw bi ci kanam wuyu ma kenn ne ca ginnaaw servir garde corps xoolal nga kii fii ñu ne wooy mais gars yi la di kaat la am kaat la <laughs> foofu lañ bëgg a dugg léegi de ñun lañ bëgg a romb ñii de dégg nga loolu eh, lii la journal bi wax journal bi naan boo bëggee dégg dëgg ànd bii ànd bii daal dëgg dëgg fa yàlla baaxul dégg nga divergence radicale entre Sonko et Mélenchon sur les sujets de société parce que ñoom ñaar démb kii lay wax jaar nii kii wax jaar nii. ci bu dee sujet bii la. société bi bu ñu demee ca wàllum koom-koom nag du ñàkk ne xëy na a ngaa la waaw kay direct news ñëw ak ñun ci jaara mi ngi nii. Mhm. Mélenchon daal boo bëggee dégg-dëgg direct news nee na. ñoom daal moom daal dafay toog daal daga daal daal wàllum góor jigéen daal en présence des étudiants ci moo xam ni juróom-ñeent fukk jaara ak juróom quatre-vingt-quinze pour cent jaara il faut suivre musulman lañ ñooy ay chrétien amul benn diine bu ci daganal. da dégg fenn ñu suñ mbokk chrétien yi wax la ne la góor ñi nañ sëy seen biir. mais loolu. Mhm. quatre-vingt-quinze pour cent jullit. cinq pour cent chrétien kenn d'accord ca. ca wàllum góor ak góor di say jigéen ak jigéen di say wàllum góor jigéen kii Mélenchon ñëw ba université dañ ko fa daj wax ko fa waaw ba pare mu ne je suis le premier législateur français qui a déposé un texte de loi à propos de la possibilité du mariage homosexuel a déclaré Mélenchon waa journal bi ne mii kii fu mu teg lii ay ko jur lii <laughs> waa mais sugu kii li mu wax nii fu mu ko teg mais cette liberté d'amour devrait être devrait être à tous pour que les populations puissent en bénéficier jël wax yu mélange yi rek na ko dàng te waxuñu jël euh, li ko Ousmane ko tontu jaxase ko mu jur polémique alors que Ousmane Sonko moom li ñu ko tontu se clair. mais Sonko xanaa dina ñëw xanaa dina ñëw ah, bind. mais journaux yëpp presque ñoom waxuma mélange yi rek. xanaa xanaa mélange cette liberté d'amour devrait être ouverte à tous. Mhm. pour que les populations. waxuñu li ko li ko Sonko wax xanaa. waa léegi journal bi mais moom fan la ko waxee. ca temple du savoir. ana kuñ ko tuddee ñu ne Cheikh Anta Diop journal li wóor certainement Cheikh Anta Diop devrait se remuer dans sa tombe fa mu tëdd ca biir bàmmeelam Cheikh yëngu na yëngu ndax la mélange la wax. ci kanamu kan Ousmane. Cheikh yëngu na. te lu ko Ousmane wax te lu yëngu lu nekk. la ko yëngu la ko ëpp doole. <laughs> Mhm. certainement Cheikh Anta dans sa tombe waaye. ñu mhm. ngi nii Ousmane ne ko. Mhm. dans notre société. le phénomène Ousmane bëggul woon sax benn instant tudd na góor jigéen ci kaw ci suufu ne loolu ma doon wax lii ren sugu. mais avant boobu Ousmane am na fu mu njëkk a waxee chaque pays bi xoolal chaque pays bi après Cheikh Anta Diop. doit se donner les moyens. de respecter les autres pays dans leurs croyances et leurs convictions. dit Ousmane Sonko qui condamne la stigmatisation de l'islam en France. sur le prochain devoir tu auras 18. merci. dégg ah, nga. Mhm. di nga jël say denc leen ba pare li nga am di ko denc 14 points peut-être. merci monsieur le professeur. merci beaucoup. il il faut relire cette partie là il faut suivre Diarra. chaque pays oui. doit se donner les moyens de respecter les autres pays. il faut dans le... chaque pays chaque pays oui. <laughs> doit se donner les moins oui. de respecter les autres pays dans leurs croyances et leurs convictions exit Ousmane Sonko qui condamne la stigmatisation de l'islam en France cela veut dire que l'islam a été stigmatisé en France parce que gis nga monsieur le maire merci Sonko gis nga soose le mot islamisme la waaw en réalité ça ne devrait même pas exister. dëgg la parce que l'islamisme n'existe pas mais qu'est-ce qui existe c'est l'islam qui existe. te bu ñu jëlee mot islam. dafa am racine ak salaam maanaam dans l'islam il y a la paix. dans l'islam il y a la tolérance dans l'islam il y a l'acceptation de l'autre dans ce qu'il a de différent. mais malheureusement dañoo jël islam collé ko obscurantisme. terrorisme waaw. fanatisme waaw. c'est-à-dire que yow boo ne sax tu de l'islam ñu kolee la loolu ñu xoolaat la looloo indi nag stigmatisation islam bii nii en France loolu loolu nag moom danaa wax ko mhm. point point islam ñoom ñaar moom ñoo ci yem point de waaw waaw Mélenchon moom ni ñuy sonalee euh, les gars là non mhm. loolu moom def ko mos a xeex waaw loolu moom am nañ ci léegi après mu ne il est alors évident que les velléités extérieures de nous imposer l'importation de modes de vie contraires à nos valeurs ne passeront pas képp koo xam ne da nga bëgg a jëli loo xam ne mii nga wala ñin suñu jëfin taxaw ay suñu aada suñuy valeur wàllum góor jigéen nga moo la ko tax ba koo indi ci réew mi ça ne passera pas ça ne mm. passera ça n'aura pas ça n'aura pas. Mhm. ah kay waay ça va ça continuez la lecture s'il vous plaît monsieur. dans notre société. oui le phénomène dont je de parler. oui n'est pas accepté. oui mais il est toléré. kenn du ko fi nangu kenn du ko fi nangu wàllum góor jigéen. da ko tubaab bi yóbbaale. léegi nag c'est ce mot toléré là. Hmm. la gars yu bëree bëri profité. Ah. Ah. du ñu ko nangu. non fii dañoo comprendre pour seen pensée. du ñu ko nangu. du ñu ko nangu de. dëgg loolu dëgg. mais toléré bi am na entendement bu ñu ci war a am. waaw mais. xoolal waaw yow yow suum. yow tey. lépp lu ñu la mënti tuumaal. te yow amoo benn preuve même bu dee sax yow. yaa ngi sa biir néegam yu ni mel. Mhm. nu la nu la nu la nu la nit di jëlee pour yëkkati ay daan teg la ko. mënta nekk mhm, mhm. mënta nekk. wala. attention attention de. Mm-hmm. sàcc bi ci boppam laa lay wax nii. waaw présomption d'innocence. da nga koy indi teg fa. mooy tolérance ba. très présomption d'innocence ba. mooy tolérance ba. waaye doo daganal. sàcc kenn du ko accepté. moom laa du moom janal ah yërmande nga dugg. te gis nga walla <laughs> ay li yàlla wax ci njaalo. bu ñu bu ñu ko bëggee euh, criminaliser sax ci assemblée nationale bokkoon na ci li li li ñu tegoon ci kaw table bi <laughs> ne bu boobaa mën nañu romb nit ka rek naka góor jigéen la amuñu ci benn preuve. <laughs> oui. jeune jeune Michel Anna loolu la tudd. oui voilà ak ay e- Eva Lissé maa ngi leen di nuyu. Germaine waaye Germaine Michel Anna ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Ndiallo yàlla condition yi mu indi ne lii mooy Ndiallo ñu am ci preuve ñu dóor leen. soose est-ce que xam nga loolu mooy lan. xam loolu mooy lan. mooy Ndiallo amul. dégg loolu jaaraat. Mhm. mooy Ndiallo. njaaloo moom yow mënoo am ay preuve njaaloo. Hmm? <laughs> yombul de. suis désolé. yombul de. waaye c'est vraiment triste. parce que conditions yi conditions yi dañoo. dañoo tar. conditions yi tar pour ñu ne pour ñu ne njaaloo am na les conditions qui doivent être réunies. ne sont pas réunies. non preuve preuve jamais réunies. Hmm. preuve doo ko am. sugu waaw yàlla dafa ne ñeente waxambaane yoo xam ne dañoo jugee ci ñeente bërëb yi xibla yi bokk lii est ouest nord sud sud ñeente waxambaane waaw yoo xamantewul waaw bokkuñu danga ca bërëb fekk fa góor ak ku jigéen bokkuñu woon sax soxla yi ñuy doxi mm-hmm. eh nee na fekk leen ñu def yaramu neen mm-hmm. wala ñu doon solu ba léegi amoo preuve de mm-hmm. déedéet nee na day fekk gën gi ci biir kuur ga. Mm-hmm. maanaam même fekk la ñu lonko sax amoo preuve. déedéet déedéet déedéet déedéet pour lan lan ngay amee preuve day fekk. kuur ga na ci biir gën ga. d'accord ba pare eh, yéen yéen yéen juróom-ñetti bët yëpp. Mm-hmm. te tege ca te tege ca kuur ga. maanaam warul am ko am kersa koo xam ne. danaan nii rek nii nii. déedéet. déedéet daaw déedéet dañuy xoolandoo nii. Mm-hmm. kuur gi di ci biir gën gi. ñu ne preuve am na. ñu ne preuve am na. waaye ñeent ñëpp suñ ko xoolandoowul. xam nga ne loolu yombut. maanaam huit bët da cee war a nekk. yàlla bëri sutura. loolu yombul yàlla yàlla dolli sutura. amiin yaa amiin. fekk nit ñi si meeku wala fekk nit ñi di solu taxul benn yoon laa lay ne lii preuve la wala maa leen fekk ba ca biir néeg ba. ñu di daw ma <laughs> <laughs> ñi ñu fi tuumaal yëpp daanaka ñoo mujjee nguur yi. sans preuve. baaxul de. Sénégal nag tuuma daf fay yomb. <laughs> Eh. Ah, ci gis. ku tuumaal ni taw benn preuve daal saa waay. ci erreur bu rëy. am na euh, am na nit ñoo xam ne sax doo leen tuumaal. rafetlu quoi. Mhm. waaw eh, loolu loolu rek loolu mm. xam ne nii la ko yàlla ñu santaane. dégg nga en relief ñëw ngeen ci révolution agricole avec le numérique lancement du géospatial mm-hmm. innovation agri mm-hmm. hub am na solo Thierno Bocoum wax na dinañ ci dellu sax enquête yooyu nekk ak ñëw ci les termes de nouveau deal le <laughs> new deal Sonko et Mélenchon sur les relations entre le Sénégal et le reste du waa deal wi lan biir yi ku ko lal. Sonko Mélenchon ah yëpp samay non jaara nag jaara nag jaara nag defal ndànk nag nag man damay révider titre rek ah damay révider titre kat. waaw waaw yow xaw ma Pastef nga boo ko xaw ma boo koo mais man damay révider titre journal bi dafa ne. enquête Sonko et Mélenchon mhm. ci relation entre Sénégal. ak li des ci adduna bi. Mhm. dégg waaye teg nañ ay termes. Mhm. ñoo lal di ñu tuddee ko les new deal. new deal. ñoo lal deal wala. man deal lañ lal noonu. mooy relation Sénégal ak ak le reste du ah, monde. ah d'accord d'accord. Ah, mhm. ñoo lal deal wa. Mhm. te jamono jooju président. boolewul dara ak coow. Diakhar Faye nga nii Nigéria. Mhm. marché de manœuvre yi. am ci réew bu am doole. ah yii. Nigéria euh, yéene kaayu benn Matar Diop nomination yaa ngi nii. benn maquillage baa ngi continuer ñi Macky sàll maquillé woon bañ ne ceeb nice Diomaye ngi leen di démaquillé ñi ci monté woon ay hanche wala montey wee ay xef ak ay xef teg greffage yoo xam ne ndekete boobu ba daal leel ku la gis barde Diomaye daal fi nii dafa taxaw yor na reeru salon di démaquillé gars yi Hmm. ah lii lii la journal bi wax dama la yor. mu ni dama kii yow di dama kii. dégg nga loolu. nee mhm. na maître Bamba Cissé maître Kéré Siré li mhm. maître Demba Siré Batili maître Moussa Sarr xam nga ñii lan lañ bañ. Mhm. lépp lu xeetoo ak wàllum politique ñoom daal nañ leen ca kàccat ah, balaa ñu naan ay avocat lañ yoo xam ne ay avocat politicien lañu. Mhm. avocat politicien am na. Mhm. ñoo xam ne ñu bokk ci ay parti waaw te loolu nag ñu ngi fi ñu ngi fi maître. maître Amadou Sall maître Dieng. maître waaw avocat maître El Hadj Diouf. moom daa réer temps yi sax. namm naa ko de. El de man daf maa napp. danaa napp. mu fi menacé ne daf may porter plainte ma Pape Alé Niang ca certificat médical ba rapport de gendarmerie ba. talaa daw dem ndàngaan sàmm. ba pare internet yi dañ la koy laaj. am mel ni rusaloo ñu fenn maître. kan El Hadj Diouf. dellu sootal dellu sootal ci deux minutes yi <laughs> El Hadj Diouf man waaw kay nee na maître Tall Amadou Ba toujours pas servi. Mhm. est-ce que ñoom Ousmane Sonko ñemee na ñoom fal ñoom Clédor Sène ak ñoom Cheikh Bara Ndiaye bàyyi fi maître Tall ak Amadou Ba ay journal bi te mi ngi ruubee yéen yow bàyyi leen yow. <laughs> ay man man roube point com roube ci boppam jommi na ay waay jëlee bàyyi leen rek garaawul bàyyi leen ñoom ñoo àndoon. wallaay ñoom ñoo ànd. ku ñu neex fal de. ñoom ñoo ànd. fal leen ku leen neex. xeexoo ensemble gagnoo ensemble gouvernons ensemble. léegi xeex nañ kay bàyyi leen rek. mooy dëgg sax. am nañ sañ-sañ fal ku leen neex. wallaay wallaay. ku leen neex wallaay ñoom daal ñoo yor seen jumaay président gagné nañu pas de bruxlu. te big bi ñoo ko moom. jërëjëf Diop Mbaye Diop maa ngi déglu rek mais oh, xoolal dara ñun waaw ñun waaw ñu ngi woon ci yeeyu bi xam nga bi affaire bi déclenché dara fii daal ay coalition la amoon na taxaw amoon na gàkku président amoon na Déthié euh, am am euh, Anta Babacar Ngom am Diomaye président am euh, Benno Bokk Yaakaar am Pire am am am ñoom daal gën a bàyyi leen leen ñu tànn seen i biir ñoom ñu bokkoon coalition. dégg oustaz Assane Seck waa commissaire pèlerinage bi dañ ko jox walla dugal nañ ko ci kaso bi waa Serigne Saliou Gueye nag borom yoor yoor moo moom ni koy def moom nit dof ak Aliou Sané activiste yi. waaw waaw ku ku ku bokkoon ci xeex bi rek wala nga jàpp ci xeex bi wala nga fës ci xeex bi rek forcément da war a mën a am poste. waaw léegi déglu déglu déglu déglu déglu déglu déglu réew mi nag neex na de. Daara Diop yaa moom dikk Dakar déggu ma déggu mu ne wax mais paa yi ni ñu bëgg nañ dugg ber ëpp liggéey Ismaïla Yassé waaw léegi daal kon waaw man mii téemaa ñëw buruxlu comme ah, neex na de gis nga ñi ñu tudd ñi représenté sax les zéro virgule cinq pour cent ci ñuy xeex ñëpp. acca acca critique yéen a kaay ñëw ci Mara day ka ko doon talil xam naa ne day. gisaane katam bi day xam naa ne moom baaxul moom Mara li muy dund temps yi mitti na. est-ce que waroon bi présidentiel yi baaxul nit ñaa ngi bàyyi parti bi réew mi di dem doom jee ngi nii Pape Ablaye Seck ngi nii ñu koy tudd ci wàllum borom ki ko tamit daal xam naa ne tani gi wasaana. Hmm. Ibou Dieng. di directeur société Guédiawaye football club dafa porté plainte Lat Diop ñuy président wu hmm? parce que Ibou nee na. Hmm. deux mille vingt ba deux juillet ba juillet deux mille vingt trois laalul salaire. ah. ñoo fi jote woon Lat Diop mii porté woon ko fi plainte ak équipe bi ba ñu téye woon ko fi moo ëlbatiku nag ginnaaw moom ba mu génnee porté plainte léegi Lat ñooy pelentente noonu di pelentente noonu. ca pelente bala. voilà parce que fayuñu ko xaalisam idée ngi nii lii lii moom moo xew foofu noonu. Hmm. dégg la Sénégal ñëw ñun ci établissement Bayens ñi ñii yëngu ñii ñii yëngu ci wàllum jën yi am nañu commencé souffrir de. oh ah nee bu lii dakkolee de xam naa ne ñoom dañuy xëy rek bàyyi dañuy mujj bàyyi de ci bàyyi leen jëm de. seen bateau yi nga xam ne bi liñ ñu ne leen leen bi liñ ñu ne leen arrêté leen bi liñ mbéc le mandat yéen i kaay ñëwoon ñun ci gis nga conférence bu Sonko beeg Mélenchon xam na lay saf dóor daal lu ko France defoon rek démb moom lay saf de wala lu mu lay saf de ñu dem le point ñëwoon ñun ci Modou Ndiaye kan mooy Modou Ndiaye ah. administrateur de Bambey TV et influenceur. de ah oui de ah baax na ok de dégg naa la yow kii le point merci ñu dem le public. Aïssatou Diop Fall j'aime bien le titre là. waaw les gages de Sonko à son peuple. waaw waaw Sénégal prospère Aïssatou nag daa am dégg de. développement inclusif mhm. waaw waaw waaw saa yu soo ko dalal na xel yi ba pare waaw joxe ay assurance waaw ah, waaw ngir peuple bi mhm. waaw barki yàlla nee na nous un pays à transformer et nous le transformerons te moom nag kon ay assurance lay doxe nous allons réussir le quotidien yéen kay ñëwoon ñun ci affaire du genre la di. maintenant mhm. promotion de l'homosexualité à l'UCAD dama laa nopp maa raw mënta weesu góor wax ko góoram lii la Mélenchon wax de dama laa nopp maa la raw bokk nag je te moi non de déedéet nee na mbëggeel mënta weesu ab góor fekk góor toog nga ne ko dama laa nopp nee foofu la nañ leen ko may eh waay du doon fii ci suñu réew rek mukk les républicains ñëwoon ngeen si Mélenchon ngi nii ñëw Ndakaaru waaw Sonko nag sant na ko gërëm na ko sant na ko gërëm na ko ci soutien bi nga xam ne doon na ko soutenir Pastef les patriotes ak constance bi nga xam ne moom la mhm. Mamadou Ibra Kane nag moom fi mu nii li Waly Diouf Bodian doon wax ci milliardaires yi Mamadou Ibra Kane daa yéeg directeur bu port bu bees bi moom ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi yéen tamit est-ce que du milliard moom est-ce que du opposant milliardaire na bañ àgg ca dégg gouvernement bi nag lu tolloo ñaar fukki mesure ak ñaar jël na ko ngir wàllum inondation yi rek bokk na ca rek audit bi moom dinañu ko def ca jamono ñooñu njiitu réew mi mi ngi nii ca diwaanu Nigéria Abuja coopération stratégique bi daal moom de ñun de ñun de dañoo am sens. Hmm. diw bi yàlla rek moo xam li tax mu doxalee ko nii. suñu njiitum réew mi boolewul dara ak coow. mokk <laughs> barki yonent bi lépp lu xeetoo wàllu politique mu bàyyi ko gaynde gi nga xam ne daa politique ba ba ba ba. ba saf soo ko xef yi sax dañuy politique xefam yi xefam yi xef yi sax day politique léegi mu bàyyi ko wàllu politique bi dina leen rey seen opposition bi dana mitti. lépp mooy yéen a kaay ñëwoon ñun ci école nationale de police bloquée par ses vieux élèves jamonoy gatsa sa bi dañoo récu dañoo recruter woon ñoo xam ne dañoo jëm mag ak li lu bi wax ci wàllum formation ba ca école ba léegi nag affaire bi nan lay demee ak fonction publique bi jamonoy gatsa gatsa bi nii li ñu li ñu li ñu recruter ci doomu takk der ci réew mi diggante police ak gendarmerie <laughs> waaye dañoo xamul peuple boo xam ne daa décidé les écoliers ni kat xoolal la révolte et la revanche journal ba ñëwaatee. le mot revanche saa su ne day dellu si Ousmane ne lan lay naqarlu mutisme boo xamante ni nii pàttaaral goo xam ne nii yow deret baa ngi tuuru ñu ngi ñuy dóor ñu ngi tëj kaso Macky sàll di def lu ni mel contre le Emmanuel Macron nekk waayeem te du moo ko wutal liggéey bañ mu sobe ne pat noppi Cor Brigitte waxu ci wax waxu ci dara dégg nga Abdoulaye Sylla dama porté plainte Pape Sané bu Walf ak Cheikh Niass. Hmm. waaw parce que ci wàllum euh, euh, euh, kii audit yeeg yooyu xaw ma cour des comptes la xaw ma beneen bi hmm. cour des comptes dañ ne benn marché wu cent quarante milliards ci wàllum jam ñaajo moom borom Ecotra waa ji ci boppam nag nee na laa ñu leen dërëm de hmm. cinq franc CFA nañ ko indi joxe ko ak franc symbolique mu ne amul fenn foo xam ni cour des comptes wax na ne wala IG ne moom daa def lu deful lebel ñëwal ngin ci le retour à Ndioum <laughs> Cheikh Oumar Anne. damay laaj looloo nañ ko génn nañu baax na. ok damay damay laaj fu mu demoon sax. <laughs> waaw gaawal moom. Hmm? yow nga nekkub maire ci dëkk yow foo demoon bañ naa retour yow koy war a jóg ci dëkk ba. ndax dëgg fa ah waaye Sénégal daal nag vraiment ah Cheikh Omar ñu ngi lay nuyu. Cheikh Omar ñu ngi lay nuyu. aan jërëjëf jërëjëf jërëjëf aan soo se na aan jërëjëf jërëjëf aan exclusive yéen kaay ñëw ngeen ci wàllum inondation premier ministre bi nag joxoñ na tamit ñàkk yar goo xam ni moom la sénégalais yenn saa yi nekkee de ñaa hmm. ñaanu leen ko ci njëkk de dana leen menacé bàyyi leen xar ak butitu xar yi nga xam ne moom ngeen di jël di ko di ko di ko di ko dugal ko récolte yi hmm. mais loolu moom la ñuy dund dégg nga ma de libération ñëw waaw ah, kay Moussa Fall Moussa Fall la dégg association malfaiteur daf lu dégg. Hmm. trafic international de drogue blanchiment de capitaux. ay de journaux yi. bi tey ñu ah, leen ko journaux yi mm-hmm. waa Douane de jàpp nañu lu toll juróom-ñaari milliards. encore ci ay faux billets. encore mu yaay. mii mi mii diggante Thiès Kolda ak Ziguinchor. 7 hmm. milliards. de faux yi colonel Mbaye Ndiaye directeur port autonome de Dakar. boobu ay nitam moom lañ jàpp. ci li ci li ci li économie bi la bokk. c'est trop ah 7 milliards 7 milliards de faux billets après 7 milliards de faux billets nga nga nga nga consommer ko c'est-à-dire que nga nga nga nga nga nga nga mën koo utiliser ci benn dëkk yaa ngi jënd yaa ngi jaay e yow mi yor 7 milliards yooyu noonu. benn partie ci xaalis bi di nga ko récupérer ak ay billets yi nga xam ne baax léegi pendant ce temps économie bi nañ lay def day taxaw day taxaw da koy rey yëfu association de malfaiteurs ak association de notre économie libération yéeni kaay nañu gis nga association de malfaiteurs gis nga coowal doomu Idrissa Seck bi hmm. ndeke ma nga jollee ca kër ayib booy dem farafe ñi <laughs> men waaw mhm. démb benn député woo na ma ma diw mii ma nga ci biir enquête ba nga ni woo ko numéro bi ngi noonu woowaguma ko sax oto ba nekk na fa diggante cinq heures du matin presque ba neuf heures bi ñu leen ko signalé mais mënuñoo gis drogue bi ñoom takk dere hmm? ñoom oto ba ñoom oto ba ñoom oto ba ñoom oto ba ndekete oto bi bunt yi ci boobu bunt yi ci bunt yi ci boobu ci la ko gaa yi taf <laughs> ñu yulli oto ba yëpp ba mu set nuñ ko tafee si bunt yi kooku të sa émission bees bi tës tës la tudd. Mhm. tës tës. waaw waa tës nit ñi dañoo jël seen tur. Ah, léegi nag seen émission tës boobu. Mhm. dinaa la expliquer nan nan nan lañ ko defee ci bunt yi. dégg léegi ñu ne coowal doomu Idrissa Seck bi. Mhm. affaire bi association de malfaiteurs la. trafic international de drogue. seetal xaalis boo xamante ne bu saltale blanchiment des capitaux. opération bi nan la ko waa OCRTIS defee ba jàpp ko. déglu de nee na ay weer a ngi nii division opérationnelle de l'OCRTIS mi ngi doon piste benn réseau sénégalais boo xam ne mu ngi doon ravitaillé woo waxul di ravitaillé de mais di ravitaillé woo ca Bissau ak ca Gambie. Hmm? waaw foofu la foofu la drogue bi di jógee di ñëw di di di di ravitaillé réseau boobu nga xam ne ay sénégalais ñoom ñoo fa nekk. Hmm? ginnaaw bañ leen rëbbee lu bëree bëree bëri soosu yaay déglu de. Hmm. moom la libération di expliqué nit ba leen rëbbee lu bëree bëri bëri enquêteurs yi nag le 13 mai lañ soobu ca mbir ma diggante 5 heures 30 du matin ba 18 heures ca kër Ayib Mbuur ak Dakar hmm? boobu fekk piste nañ leen li saa neex naan rek piste ko njiital réseau ba di Sylvain Baccapara Mendy Baccapara Mendy Sylvain Bachapara Sylvain Bachapara Mendy am 47 ans Sylvain Bachapara. xoolal rek gone gu ndaw 47 ans. moo njëkk a daanu ca kër ayib moom Pathé Gueye 42 an ñoo daanu ndaw foofu 18 kilos de cocaïne. Hmm? mu nëbb ko noonu defar ko ba mu baax ci seen benn kat-kat. est-ce que. fekk gars yi débloqué nañu oto daaj cocaïne. Hmm? cocaïne balance électronique ba cocaïne un million six cent ab lot de documents administratifs ay kit de consommation. ak ah, nga ni. de. ana fu ñu ko fekk ana fu ñu ko fekk. Hmm. ca njëriñ séeréer. ca ñu sëlee bagage yi fële ca ngëriñ séeréer situé ci benn villa ca ngëriñ ngëriñ ngëriñ ngëriñ séeréer enquêteurs ya takk dég góoma di am na ñoo xam ne jàppaat nañ leen ca Gabon ñu ne ñooñu ñan la kenn kee ngi tudd Ousmane Faye cinquante deux ans keneen kaa ngi tudd Amadou Diam Ndoye cinquante deux ans ak Ibrahima Faye vingt et un ans ca Ngaparo dañ daanoo mooy groupe bi mooy groupe yi ñuy tudd doomu Idriss Seck bi mhm. ñu ne Ousmane Camara trente quatre ans Alain Diatta trente et un ans teg nañ leen loxo ci appartement patron bi di Sylvain ba Mendy ca Ngor Virage. yee waay Samba. Baccapara Mendy Baccapara ak deux mille dollars ay titre de propriété. Hmm? perquisition bi waaw léegi. Hmm. doomu Idrissa Seck bi nag di Alaaji Papa Abdoulaye Seck doomu Idrissa lan la ca ba jàppee ko clinique moom lañ ko jàppee clinique gardaa ko. Hmm? daa feebaroon wala. daa tawatoon wala. journal bi ne. Hmm. gis nga groupe bi. Hmm. ay punkal rek a ci ne. Hmm. soose ay jaaykatu jamaa ay agent immobilier ay boromi restaurant. yu mag. yu mag ay jaaykatu jama jaaykatu jama day man damaa mën a jaay jama. jaaykatu jama ay agent immobilier mooy li nga wax démb ci affaire. immobilier tabax yi yaa ngi mel ni da nga doon gis <laughs> ay ak ay propriétaire restaurant hmm. police ramassé na ramassé na ca ñetti oto lii jërëjëf anta leer na de ah amet may bañ ca paraal ay colkook sonko gii colkook sonko gii damaa foogoon ne bu mélange soo cëpp ci réew mi bu koy teg ba di daw <laughs> man moo gisee. dama dama ne xanaa kii doomu Olusegun Obasanjo la <laughs> Nigéria. yàlla toll nii bii de Olusegun Obasanjo du saw. dégg nga loolu. Ah, homosexualité ah, rafet na trop Macky Sall lan la waxoon ci wàllum góor jigéen gi mu ne ak man. Mm. góor jigéen gii kenn kenn du ko fi daganal. Sonko lii la dem mu ne Sonko nag dafa ñëw mu ne nous allons continuer à la gérer gérer la góor jigéen gi ñu koy gérer. c'est vrai du fi am la wax. non géré géré bi mooy tout le monde sait que homosexualité am na Sénégal mais kenn xam nañ ne nanguwuñu ko du suñu ay texte du suñu valeur du suñu diine kenn nanguwu ko mais tout le monde sait que am na fi. Mm-hmm. boobu ba léegi ñu ngi dund ak loolu. loolu la am na. lan am na. am na fi góor jigéen waay. port euh, autonome de Dakar Matar mooy nouveau secrétaire général du port ah ministre bi nee nañu audité. Euh, euh, euh, milliards yi ah, Ama Baldé kon day face à face ak Gris Bordeaux samedi voilà l'informateur ñëwal ñun ci daganal góor jigéen ci biir réew conférence ca université Cheikh Anta Diop Ndakaaw PM bi nag moom nee na danañu auditer waaw ah, kay waay l'observateur ñëwal ñun ci Diomaye président les nominations et les coups politique mm-hmm. la prime à l'engagement à la constance et la mort actée da Yewwi dañ dee. <laughs> déet waay alaaji. <laughs> mais affaire yooyu du débat ko ma ne ko déet waay. soose. Hmm. heureusement sax dégguma benn waay yeewi buy buruxlu wala muy tëb di dal. Hmm. mais ay coalition la woon. Hmm. coalition bi ñoom bàyyi nañ li ñii bàyyi nañ seen i bokk ca ñii bàyyi nañ liy dem ñii ñii ñii ñii ñoom Diomaye ñoom Sonko ñoom lañ gëm ñii dem nañ jàpp ca ñii ba ci waa PDS yooyu nga xamante ni bi mu desee ñaari fan xaw ma fan lañ ca dem bokk mais ku ci nekk jël nga yow sa sa sa sa euh, say responsabilité dégg nga loolu mhm. dem ne man kii laa àndal mhm. loo ca góobee gar ko mais pourquoi di indiwaat yeew yi di indi yeew yi wala wala di woo non yeew boo déggee baat bi waaw yeew yi askan wi objectif bi du loolu la woon mais jamono yi ñuy wax ni askan wi yeeweeku na yeeweeku na yeewi nañ askan fii may wax ak yow nii kon kay yeewi war a tudd am Sonko violé wuñ cartu Yewwi ba mu signé woon waaye Yewwi violé wuñ carte ba ñu signé woon ca Yewwi benn trahison amu fa dañ ne dañuy ànd local ànd député bu ñu ñëwee présidentiel chacun est libre d' être candidat le candidat de Yewwi le mieux placé au deuxième tour ñu jàppale ko loolu am na gagné na premier tour jeex na kon yow jeex na yow ma ne waaye. mais amatul sens sax muy am. yow ma ne amatul sens sax yow di exister. waaye yow ma ne kii waaye yow ma ne gis nga. gars yi amatul sens. bépp waa yow bu fi jóg jóg lu naan da ngay jéem a burux wala kii ba ba matadi wala topp leen di leen jéem a neexal ak yooyu ba matadi gis nga nit nit da ngay am personnalité. waaw day am dignité. nit da ngay am dignité. toog leen xaar rek te yow yaa jël say propre responsabilité ñu dëgg ay coalition nga ne man fii laa far. waaw mais bu jeexee jeex na. mais nit ñoo xam ne sa waay yow politique rek nga bëgg a dundee ndee maa xaar ba kenn ni Ahmed lan lay defati ci télé dama ko muñ muñ mënatuma ko muñ mais léegi moom ba nit wax ma ko ñooy sàccaloo gars yi de. waaw ah. yenn ci senegal yi. ñooy tëjaloo gars yi. télé bi di sa métier. ba ba ba nit xañ ma ko. Babacar Diagne moom ragal naa ni li des si dundam dootul ci mbooloo te Babacar Diagne moom moom dina bàyyi di wax ci mbooloo moom. te billaay te billaay sama wóolare wu bàyyi la. moo tax état baaxul quoi. ndeysaan Babacar Diagne. Hmm. ñoom Mansour Diop lañ convoqué woon dig pour la première fois ma teg ko bët nii maa ngi Malick hmm? xam nga dig mi ngi nekk buntu ministère. waaw euh, euh, euh, économie te guy ga. muy génn Malick Thiandoum ne ko eh moo nekkoon directeur RTS di ko nuyu ñoom ñu ñëw di nuyoo mu ne ma yow <laughs> man maa la xam ne xamoo ñii taxaw fii yëpp dañoo war di génnee di la jox addiya man sa bàyyi laa xam. am sëriñ pire ga waaye teewul bu ma ki bëggee rëq sama ndigg rek <laughs> jaar ci moom moo tax am damay geer ak moom <laughs> bu àppee ko waaw Ahmed noppil du ma noppi moom moo la lan dillu moo moom Macky ñoo lal dil te Macky ngi nii ak Amadou Ba ñoo laloon seenu dil léegi ne dil ba kalaate Pedro Ndiaye mu ne l'inévitable du tir nañ fexe ba bu ñu dara tiis <laughs> Amadou Ba day créer propre cadre politique loolu de loolu de une bonne partie de l'APR et de Benno Bokk Yaakaar va le suivre. léegi léegi Pedre ci lii rek la mën a wax. ci lu muy wax. mais Pedre du wax ci li Sonko wax ci suñu ressources yi. à Mélenchon non non kii Pedre fii la far bàyyi leen rek. am rek moom moom am rek lay topp. révélation yéen i kaay ñoom ñun journalu Ndiaw Fall baa ne nekk nii. dégg nga saisie de douane 7 milliards. démb rek lañ ko fa wax fii démb. Sénégal dafa bëgg a nekk plaque tournante drogue ak phobie ñëw Fall de lu mu bon bon bon ñëpp xamee woon nañ ko ak nguur gee passé waaye moom vraiment lii la génne ku nekk nag bu discours amee dañ cay génne lu la arrangé ak loo jàpp ne mooy jaay sa journal mais moom lii la génne Ousmane Sonko nee na wàllum ngóor jigéen l'homosexualité ne sera pas légalisée fii ci Sénégal gii moom de lii la ci seppali ku ci nekk nag seppali lu la neex ah. loo jàpp Ousmane moom day jaay Ousmane mu ngi jaay jaayee jaayul Ousmane rek Ousmane moom day jaay gars yi ñoo jaayul. moo taxit saf na saaf ci journaux yi de. réew mi quotidien ñëw ñun ci Sonko ay rafal la yónnee laa lay wax nii Macron. Mhm. ay rafal fëgg ko moom waaye source a ñëw ñu waaye yow DG wu SAPCO bi Souleymane Ndiaye. Hmm. journal bi nee na pono oto bi. Hmm. gars yi dañoo ñëw dindi wiis yi. ah. wiis yi ko fa. Hmm? loolu moom pour heureusement ba daw xamal nekkul si dëkk yi village yi yooyu daw ay quatre-vingt ay cent bu ko defoon nee nañu heure bii kenn waxatu ko waa ji daal mu ngi ah moom doy na waar ana ah, la mu jàpp moom mooy hmm. lii moom ñi ko def xamul ñan la mais ay noonam lañ yoo xam ne dañoo bëggoon nag mu dee non privé wala public hmm. privé la privé la Macky yi dinañ leen traqué ba ci biir raakol yi Ousmane du yem ci traqué leen nii rek nii nii ci inondation yi xool wuy ma daneen fekk daneen fekk ci biir tunnel yi ci biir poto poto yi ci biir fosse yi dina leen fa fekk génnee leen képp koo xam ne da am masque wu dugg ci biir àndoon ak Macky dugg ci biir fosse yi Ousmane nee na dana la fa fekk loolu moom ngeen gaaw génne xaalis bi suite côté Dieng ñëwoon ñun ci ngi nii. Mhm. vers un audit la wax de. 700 de 717 milliards. Augustin Senghor mu yëkkati loxo am daa gañewaat ko tribune yéen a kaay ñëwoon ñun Sonko daal. wàllum góor jigéen gii ak wàllum polygamie mu ne Sonko day ba ngay dalal xelu mélange. non non non non non non non ah kii itam lii rek génn. non non non nee na Ousmane Sonko déclare que l'homosexualité est tolérée au Sénégal. non non non non non non non non non non non je suis désolé quoi je suis désolé Socé. Socé Socé gars yi gars yi déglu nañ discours bi xam nga man nag je peux comprendre nga titre benn titre boo xam ne. sava sava ça va susciter débat mais toujours titre bi nekk ci même logique gu li ñu wax. Mm. mais quand on dit que Sonko rassure Mélenchon la mot rassuré sax amu fi place mais ce qui suit mooy le PM déclare que l'homosexualité et tolérée au Sénégal mais suñu nee toléré ci man angle lañ ko wax mais est que Sonko a dit pour dire que l'homosexualité et tolérée au Sénégal. en tout nit ku nekk am na ay droits c'est-à-dire il a il a fait comprendre à Mélenchon que les droits humains sont respectés d'accord mais respect des droits humains nag taxul ñu def chasse à l'homme ne kan moo nekk fii kan mooy def li comme li ko monsieur le maire waxee sànq sàcc doo ko fekk même bu dee xam nga ni fonction am la mais amoo dara lu lay leer ne kii kat sàcc na wala amoo ci benn preuve nga taañaañal ko. mais soo sa yow mi bokk si CAP yéen ñii doo leen koy dénoncer yoo ci mën xam nga édi journaux yi quotidiens yi da nga am sa ligne éditoriale bopp. loolu moom c'est leur liberté. Hmm? mënoo ci dara yi mënoo ci dara dara. religieux li a forcer pour ma ba ko rek du ma bàyyi. mais mais ñoom bu ñu opposé nañu génn opposé mais lu jëm ci wàllum journal euh, métier journalisme ñu bàyyi parfois dugal ay yoo xamante ni. li ñu mën a def kay mooy ku fi ab yéenekaay waxal naka su noonu nga yóbbu ko ci yoon loolu rek. Eh, kon de ñi ngay yóbbu ci yoon bi bari kese wala nga baal leen nga wala nga wala nga muñ wala nga baal leen ak yàlla. am na ku ñu woon ci yoon ku taxaw wax carrément ne diw Macky Sall lay liggéey waaja yóbbu ko dig <laughs> une heure de temps moom patron wu dig ak waaja mu génn ñu ne ko demal defi déclaration fa mu ko waxee woon fa la ko waxaat <laughs> waaw mais j'ai rencontré une personne multidimensionnelle <laughs> j'étais indi en erreur waaye ki ma toogal wallaay du workat doomu garmi ne ku baax wuyu ma waxuma Sénégal mais moom les États-Unis d'Afrique moo mën na koo jiite borom xam-xam pire mooy diw man daal maa ngi koy tuubal di ko jégalu. waaw mais boobu fekk na yow jaara yow wax nga le mal est déjà fait ay jàmbur. le mal est déjà fait c'est ça. Mm. yàq jëkkëru jàmbur yàq doomu jàmbur parce que kooku papaam ak yaay mën nañoo dund tamit. ci ay minutes. ci ay minutes yu néew nga defal ko vidéo toog xas ko ba mu ràpp parce que tout simplement yaa nga woon Finlande. am Wade nee na boo bëggee siiw da ngay tooñ ko siiw mhm. waaye itam wuy ma boo demee Finlande da nga bëgg a jugaat yow tooñoon ko siiw rek ban jël photo am teg <laughs> site boobu tamit di jël sama photo chaque jour di ko di ko teg ñu ne Ahmed Aïdara fait de fracassante révélation hmm. te te te te man du du ma fa wax lu ak ku jigéen ki ñooy toog rek <laughs> ne waaw Ahmed day moom tey nee na vraiment wàllum inondation yi nañ ñu ko war a in dañ ko war a mooy suñ chronique yi ñuy def fii ba pare jël sa photo tag fa photo ba daal lay teg wala ñu bi xam